sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, ñu ngi am mbégte ci eh, dajeeg sunu mbokk yi nga xam ni ñoo yore liggéey bi ci muqaddimatul xidma te ñu yore liggéeyu jumaay Tuuba saytu jumaa eh, ci munaasaba yi gan gu màgg goo xam ni dafa ñëwoon gane si Touba ñëwoon gane si waa Kër Sëñ ñëw gane si alxalifatul aam li tariqatil muridiya muy al cheikh Mouhamadul Muntaqa eh, gan googu nag mooy alxaaji Sidiya Jaabi eh, doon <coughs> ku ñu xam lool ci dëkk bi. xame goo xam ni xameel gu yàgg la eh, alxaaji Sidiya jóge Casamance ci dëkk ba ñu naan Taslima ak ci dëkk ba ñu naan Marsasum ndax ñaari dëkk yooyu yëpp askan wa fa ne moom mooy seen delluwaay eh, moom mooy ki nga xam ni mooy seen njiit eh, ci kaw loola nag kooku nga xam ni xam na euh, dëkk bi xam mag ñi fi newoon ak boroom xam-xam yi fi newoon euh, la ëpp ci ñoom euh, xamante woon nañu ak moom ndax ñëwam ci dëkk bi dans les années quarante wala années cinquante yi la fi tàmbalee ñëw depuis ci jamonoy sëñ Fàllu am ak ñoom ñëpp. ay alaaqaat ay relation yoo xam ni relation yu rafet la eh, alaaqaat yooya it mu tàmbali woon ci ay maamam eh, ndaxit ku xam famille Dia bi sa xel dem ci dëkk bi naan Fuuta Touba walla Touba ga nekk ca Guinée eh, Touba googa 1814 lañ ko sos 1814 la ko boroom sanc muy a Cheikh Salim Karamba Jaabi nga xam ni mooy seen maam ñoom ah, mu doon dëkkub xam-xam doon dëkkub diine doon dëkk boo xam ni mbooleem ñi nga xam ni dañu doon ay xeeti soose ñu naan leen mandeng ñu baree bari fa la ñu niitoo fa lañu ñu ah, gëstoo fa la ñu sàkkujee xam-xam surtout nag soose yi fare Casamance wala yi fare tàmba wala yi fare Gambie wala yi fare Guinée Bissau eh, ñoom ñëpp foofa la ñu taataane ba yàlla def ci seen xam-xam googa ñu jële foofa moom lañu ñu mujj tasaare ci xeeti soose yi nekk ci ñetti réew yi yëpp eh, mu doon eh, famille boo xam ni famille xam-xam la dëkk ba it doon dëkk boo xam ni dëkkub xam-xam la sunu borom dogal nag moom mii Eh, nga xam ni mooy sëriñ bi toog ni di cheikh alxaaji Sidiya Jaabi eh, baayam di cheikh alxaaji Mouhamad Fodé Jaabi moom it doon doomi a cheikh Mouhamadul Maxiili Jaabi ñoom ñëpp ay boroom xam-xam lañu yoo xam ni kuy saytu xam-xam jox yitte xam-xam yi nga xam ni wala mbind yi nga xam ni ay africain ñoo ko bind surtout ci diggante senegaal ak Guinée Gambie da nga fekk lu baree baree bari ci seen i mu àllafaat lu bare bari ci seeni i mu na rawatina nag euh, baayam moom yaa Cheikh Mouhamad Fodé nga xam ni la mu bind ci ay téere te la ca aju ci alfiq Euh, di aju ci alfiq lislaam yi toll na ci fanweeri téere ak ñaar yu ci bari ci téere yooyu mool nañu ko euh, ba nit ñaa ngi ko cay jariñu euh, moom mi tamit ñëw jaar ci tànk yi nga xam ni moom la baayam jaaroon gëstu jàng ba am xam-xam ba moom it alhamdulilah bari na ay mu àllafaat toll na liñ ko moole lagum ci ay mu àllafaat lu mu néew néew toll na ci juróom-benni téere yoo xam ni moo ko taalif euh, am na ci téere yoo xam ni ci ay muallafaatam yegg na ci lu mat ñetti téeméeri xët trois cent et quelques pages am na téereem boo xam ni mot na ko te lépp nag aju ci fiq ak ci pas-pas ak ci wàllu tasawuf euh, mu doon euh, kilifa yit goo xam ni xam-xam xam-xamam Euh, dëgg-dëgg fexe na ba yaatal ko tasaare ko ca gox yooya ma tudd léegi diggante Casamance ak gàmbi ak Guinée Bissau ay taalibeem a ngi fépp ay ñu mu defar jàngal leen ba ñu jóge fa sañc seeni daara bari nañu ci gox boobu lool euh, boo demee ca dëkk ba it taslima googa ñu tudd léegi moom mii moo ko sanc ci ndigalu way juram waaye dëkk ba dëkkub daara la dëkk ba dëkkub daara la la fay yeewoo ci ay taalibe ëpp na junni taalibe ak ñetti téeméer ak lu topp gannaaw loola loola doyu ko waaye sancaat na gi beneen dëkk bu tudda daaru diin mu doon dëkk boo xam ne dëkk bu yaatu la dëkk la boo xam ne da ko def ay tool waaye ngir jàngale rek donte mbir mi mujj na dem ba gën yaatu ba am na ñu baree bari dañ mujje gàddaaye ca fa ñu dëkkoon jóge Saalum jóge fu ne ñëw sañc ci dëkk booba naan ko daaru diin ba yàlla dogal na at yi ñu génn ci la fa tabax jumaa ju rëy rëy euh, gannaaw loo gil it tabaxaat na beneen dëkk sanc na beneen dëkk bu tudda Touba Jaasing Jaasing ab gox la boo xam ni mi ngi ci boori marsaasu marsaasu sax ci biir Jaasing la bokk sanc na fa dëkk bu yaatu it mu tudde ko Touba moom it da ko def dëkk boo xam ne dëkkub liggéey la waaye dëkku jàng la dëkku gëstu xam-xam la euh, njaboo tamit ñëpp it ci loola la leen teg ci jàng ak jàngale ak sàkku xam-xam ci anam yëpp euh, mu yàgg ñëw ci dëkk bi nag yàgg fi lool depuis comme niñ ko waxee jamonoy sëñ fàllu amoon ak sëñ fàllu ay alaqaat yoo xam ne alaqaat yu dëgër la ba sëñ fàllu da koo jàppe woon ni doomu boppam la loola mag ñi fi ne Euh, ñi fi des te fekke woon sëñ Fallou ñu bari euh, ñu ngi seede loolu euh, tey jii rek sëñ Mamoun Bousso al imaam mi nga xam ne mooy imaamu jumaa ju mag ji ñëw na fi yàgg na fi lool euh, ndax wóllëreem la woon wóllërey ay kilifam la te dafa fekke lu baree baree bari ci digganteem moom mi ak sëñ Fallou fekke lu baree bari ci digganteem ak sëñ Hassan Bousso ak sëñ Ahmadou Hassan ak sëñ Modou Bousso ak sëñ euh, Mouhamadul Bakir Bousso ñëpp rek yàlla dogal na mu mu amoon ak ñoom ay alaqaat yoo xam ne alaqaat yu dëgër la te lépp rek xam-xama ko lal ak diine Euh, waa kër sëñ Touba it comme ni ñu ko waxee gannaaw sëñ Fallou amoon naag sëñ Bachirou ay alaaqaat yoo xam ne alaaqaat yu dëgër la ba daan na gane si sëñ Bachirou euh, fii ci njaareem daan na ko gane ji it ca Tiwaawan euh, yemut ci loolu waaye li des ci njaboot yi sëñ Touba lu mel ni sëñ Abdoul Ahad amoon naag moom ay alaaqa ba daan na am na xasiida bu yaatu sax bu mu bindoon ci sëñ Abdoul naka noonu Serigne Chouaibou amoon naag moom ay alaaqa ba euh, ni nga xam ne noonu la ko sëñ Suwayb bu daan terale ak na mu ko daan gàttandoo bu masaan ñëw ci dëkk bi ci jamonoom naka noonu sëñ Mourtala moom da daan jóge fii di ko seeti di seeti waajuram foofa ci Casamance ba suñ borom dogal na relation yooyu sëñ Basiiru sëñ Bas mu sëñ Mourtala moo mujj doon relation yooyu ci baayam baa amut at mu ne dana ñëw ca moom gane si ko ay fan euh, yenn saay sax at mi dana ko def ñaari yoon euh, euh, naka noonu sërif sëñ Fallou digganteem ak sërif di mi nga xam ni moom la tudde sëñ sërif lu ci baree bari moom mii moo nekkoon hamzatu wasli bi diggante sëñ Fallou ak sëñ sërif di ba nekkoon kankan nekkoon na daan na jokkale seen diggante ci anam yoo xam ni eh, macha allah ñoom ñaari kilifa yooyu yëpp dañ ci daan am mbégte mu rëy a rëy yal na yàlla yokk seen leer te taas ñu seen i barke. Ah, yàlla dogal it mu xawoon a gëj Touba eh, depuis bi sëñ Mourtala nelawee ba mu ñëwee jaale si ko indaale marsiya bu rëy rëy boo xam ni at mooma jarida bu azhar tasaare nañu marsiya boobu divisé nañ ko ci seen ci seen ci seen eh, magazine boobu seen journal boobu mu doon même sëñ Mamor am na ci eh, tukkeem boo xam ni ci bitim réew keroog maa ngi ñu ngi koy gis muy jàng marsiya bi nga xam ni moom sëñ bii moo ko defoon ci sëñ eh, ci sëñ Mourtala kon bu ñëwee ci dëkk bi du fi gan dëgg la yàgg na fee ñëw waaye nag géej gi tax na mu ñëw ngir yee salaat alaaqaat yooyu nga xam ni moom la ay way juram séqoon ak eh, séqoon ak waa kër sëñ Touba. Euh, man nañu ne sax alaaqaat yi fa mu tàmbalee daa gëna sori foofu waaye comme mbiru télé la dañ ko doon dañuy tënk noonu rek waaye alaaqa yi ci sëñ Maam Mor la tàmbalee woon ak maamam duñ naan a Cheikh Abdoul Qadir Jaabi ca diggante booba la tàmbalee woon ci atub 1284 ci gàddaay yonent bi 1284 ci gàddaay yonent bi booba la relation njëkk tàmbali ci diggante Touba googa ak waa kër Serigne Touba te Mamor Anta la woon Euh, kon alaaqaat bu yàgg alaaqa yu yàgg la euh, ay maamam it euh, Cheikh Mouhamadul Makhili it ñëw dekkalaat alaaqaat yooyu rakkam di karama sànkung ñaan ko Mouhamad Taslimi moom it ñëw féddaliwaat alaaqaat yooyu ci ay rasail ak i xasaid yu mu daan bind doon ko yónnee Serigne Touba. Eh, ginnaaw gi eh, magu baayam it ñëw maamam yónni ko mu ñëw féddali alaaka yooyu magu baayam boobu jógee woon Guinée xaasatan ñëw ci Serigne Touba njaareem Serigne Touba dalal ko ci mas sëñ ma Masamba mu def ci fa ab diir doog a dellu te maamam Cheikh Mouhamadul Maghili moo ko yónni woon. magu baayam jooju doomam mi ngi ci jataay bii ñu ne nii tey eh, kon alaakaat yu yàgg la bu ñëwee ngir dundalaat alaakaat yooyu ngir nako ay baayam waccale alaaka yi mu mu doon sa tilkal alaakaat mu doon na alaakaat yooyu ba la am ci digganteem ak njabooti sëñ Touba ci eh, eh, mbàkke mbàkke mbàkke yi ci busoobe yi ci waa kër sëñ Njaay Gédé yeeg ñëpp mu am ak ñoom ay ala loola la bëgg it loola rogolaat yegg ci njabootam ci ay doomam moo tax ba muy ñëw mbooleem doomam mbo mbooleem njabootam muy ay doomi boppam yu mu fekk ci réew mi ñëpp la àndal bi muy ñëw tey ngir dénk leen euh, sëñ Muntaxa ngir fasaat feddaliwaat kolore bi ci diggante Touba googoog tuubaa gii waaye ci diggante taslima gi nga xam ni moom moo ko sañc ak Touba la amoon digganteem ak waa kër sëñ Touba yi continuer rogalaat ñëw ci njabooti boppam loola moo doonoon tànk yi nga xam ni moo ko moo ko tax a ñëw waaye ci kaw loola nag euh, fexe it na euh, ba bi muy ñëw mu ngeen di xasida ndax moom macha ku ko xam-xam ko ci ci ci ci siyaar maa ngi maa ngi waxtaan ak sëñ euh, Maamun Buso ay at ca gannaaw mu may wax ay bayitam moom mu ne ma bayitam lu bari yu mu daan indi di ko di ko jox sëñ Fallou wala ko di ko way yeneen kilifa yi fi ne mu ne ma lu lu ci bari dama ko daan mokkal mi ma ci mi ma ci fàttali bayit boo xam ni sëñ bii mi ngi ciy wax sax ni wa shi'ru minni kalkalaami muyassarun maa anna shi'ri yajtalihi fi aamu euh, mi mi mi keroog sëñ Maamun mi ngi may fàttali bayit yooya tey jii bi mu fi jëwee mi ngi waxtaan ak moom ne naan naan ko si sa sa way yu bëri dama koo mokkal ba tey mu ngeeg man tey jii rek sëñ Maamun mi ngi ko koy wax shaa'ir la suñ borom dimbali ko it nag ndax nag at yi mu toll koo xam ne daanaka daanaka jege nga téeméeri at euh, daanaka rek mu ngi ci téeméeri at ah, suñu borom dimbali ko ba tey may na ko mu des ak xelam ak wér-gu-yaramam màgget rek fi ne ak mag rek a fi nekk waaye xel meeg wér-gu-yaram bi ah, âge bi mu toll bind xasiida gu toll nii gu yéeme lool raa am am raw ak gu yéeme sax indil ko sëñ Muntaxa démb ah, loola it day wane ni rek eh, sunu borom da ko defal tawfiix tawfiixu bàyyi ko xelam Ah, ba la mu daan bind booba ba tey mi ngi koy mën a bind mu doon borom xam-xam bu mag macha allah boo xam ni eh, Casamance ñëpp xam nañ ko Gambie ñëpp xam nañ ko réew mi it ñëpp dañ xam nañ ko ndax na mu mel fii Touba mbooleem kër diine yi ci Sénégal fuñ ca fuñ ca man a dem rek Euh, fu xam nañu ko wa ay ay asaara ma ñu nga fa. Euh, balaa may tënk di ko jox muy muy muy àddu donte àddu gi sax leerul lool ndax mage na làmmiñ wi lot na lool léegi waaye balaa ñu yegg ci loolu danaa ci dana am lu ma lu ma lu ma lu lu gàtt lu ma lu may tënk ci lu ma mas a wax man ba ma ko waxee yàgg na euh, mu ne ma ca 1960 baayam da ko woo bis jox ko euh, ne ko dama bëgg nga nga dem nga dem Sénégal ndax ñun Casamance boo xasee jéggi jéggi dex gi rek mag ñëpp fii fii Sénégal lañ daan tudde fii waaw dama bëgg nga dem Sénégal euh, sëriñ si fa nekk ñépp fu ca nekk nga dem fa dem siyaare ji leen seet leen xamanteeg ñoom nuyanteeg ñoom euh, am pour ràbb alaaka sa digganteeg ñoom waaye foo ca demit def ca benn fan euh, wala boo fa guddee boo fanaanee boo xëyee nga dem feneen waaye boo demee Touba toog fa lu la soob jaxasoog nit ñi sëriñ sa fa nekk lu la soob waaye koo ca demit xam ni am na ay tool am na daara fexeel balaa nga fay jóge nga yee dem ca daaraam wala ca ay toolam nga xam nañu nañu nañu nañuy nekkee ñoom seeni dundin nga xam ko bàyyi ma ko wax loolu jël ay leetar yu bare bari bari jox ko mu def na mu ko wax jaar fa mu war a jaar yëpp dalee ko ca ba Kaolack ak ba fépp rek kër diine koo xam ci senegal jaar na dem na fa mu mujj Touba def fi ab diir am ci kilifa yoo xam ne ànd na ak ñoom dem ci seeni tool ak seeni seeni sanc gis lépp ba mu pare bi mu delloo sëñ bi ne ko nag loo fa gis baayam ne ko loo loo lan nga may jox compte rendu compte rendu yi mu doon joxe wax na lépp waaye nag bokkoon na ca la mu ko wax mu ne ko la jaaxal mooy ni Touba kilifa yi fa nekk foofa dem am nañu ay tool tool yoo xam ne permettre na leen ñu mën a def di tarbiyu ay nit di jàngale waaye it permettre na leen ñu mën a wéet ak yàlla di jaamu yàlla mu ne ko loolu seet naa ko seetlu naa ko Touba loo xam ne dëgg-dëgg gisuma ko fu baree baree bari ci fa ma demoon mu ne ko nag baay bi ne ko looloo taxoon maye la na nga mujj Touba te na nga fa jël sa temps mu ne ko nag kon booy boo nga waaj jéem a sañci comme na ñooñu sañce wut ay tool pour mën a nekk foofa yow it nga nekk ci continuer ci liggéey bi at mooma la dem wutub sañc ca dëkk bu ñu naan Kamoya 1960 lii ba ma ko waxee léegi mi ngi bëgg a mot ñaar fukki at waaw gannaaw gi nag bi mu demee comme foofa dafa ñëw woon nekk ci dëkkub jàmbur dama dem ba loolu doyu ko mu sañc dëkkub boppam mooy taslima en 1976. ginnaaw gi la sañcaat ñaari kon dafa jël Touba def ko royuwaay jël sañ Touba def ko muy muy giddam def ko teg ci euh, njabootam bëtam euh, ba nañuy doxe muy jéem di doxe noonu ci ci mbiram yépp Euh, kon loola day wane rek nii mook Touba yàgg na leen def référence yàgg na leen def royuwaay waaye nag wéy juróom moo ko tegoon ci yoon woowa wéy juróom moo ko tegoon ci moo ko xàllal yoon woowa ne ko jaar ci euh, dama fa dem jamono fan yële ca gannaaw ci mois de décembre euh, sunu waxtaan yëpp ci fan ñetti fan ya ma fa def lépp daanaka ci sëñ Touba ak Touba te moom ci boppam mooy mooy mooy mooy mooy mooy wut waxtaan woowa di wax ci sëñ Euh, euh, suñu waxtaan wu mujj sama ñetteelu fan ma ne ko euh, sëñ Touba ba dama bëgg nga tënkal mu benn baat walla benn jumla ci sëriñ Touba buñ la daa laajoon ne la décriral sëñ Touba sëñ Touba mooy kan lan ngay wax. maa ko laaj loolu man ak moom rek mu ne ma lenn daal moom laa la ci mën a tënkal mooy ni ah, gisuma walla xamuma kenn koo xam ni. li yonent bi jaral sëñ tuubaa jaral na la ko waaw lii lii la ma tënkal keroog ci sëñ Touba mu ne ma li yonent bi jaral sëñ Touba gisuma ku mu ko jaral fa mu toll ci yonent bi gisuma ku fa toll keroog lii la ma tontu mu ne ma lii daal laa la mën a tënkal ci sëriñ Touba waaw kon moom mooy alxaaji Sidiya Jaabi di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan lool ak wér lool yàgg fi lool ndax yàgg fi njëriñul islaam la njëriñul xam-xam la waaw comme ni ma leen ko waxee waxam mënut a yàgg waaw ndax euh, macha allah euh, la war a wax yëpp daanaka wax na ko dañuy gun dañ koy gunge rek waaye koo xam ne dundam yëpp nag ci jàngale la ko def kon dafa mel ni la war a wax yëpp wax na ko waaw kay barkeelu ci wax ji rek xam naa wolof yi nag setul dara waaw làmmiñ wi it leerul lool aywa sahilila yamaroɓe wolema londola kuwo to anin sérine touba buŋo to yemin la hmm. hmm. satela hmm. tamaña to sérine touba naala toɓolu adimolu ila kuolu tamandiña to ilafta yemol hakkilo bulandi jeela domandin anaɓe kele minute luru fo minute tanti woye wasaro kele inchallah bisimillah Eh, ko eh, jama mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp ana jam am na mbégte ah, ci ñëw Touba yoonam wi ndax géj na fi lool bari paama la goo xam ne it teewut xelam musu fee jóge ma ñuy rajo Khalifa ñi ñu ne mun dénkee baat. nee na kii toog nii ci sama loxo ndeyjoor mooy taawam. ma beneen ba ma rajo li ñu ma magaloo magaleen uhm, nee na bi mu fi gëjeeg léegi. teewul màggal gu nekk kii mooy jiite délégation bi jóge ma ñëw màggal si. Ah, nee na loola noonu la demee. waaye ñu naan si leen. nee na waaye ren jii nag. Eh, yankuwa kalo hamudani moro halibo muya nee na mu ren jii nag yàlla def mu nammu mu nammu mu lool ah, ndax gëj na fi lool ak nam it xalifa bi ngir war moo tax mu jóg ñëw seet si ko ah, nata ñëw ko yani na moo tax mu yéene ni balaa comme Casamance xam nañ nawet bi bu xasee sori daanaka kenn du mën a dem fen mu ne balaa nawet bee sori ñu ngi koy xalifa kontoon. nee na mu ñëw ziyaare si Touba waaye it ziyaare si xalifa bi. ah Mor Kane ziyaare si Baye Diès Ataye. ziyaare Serigne Touba ziyaare xalifa bi waaye it eh, eh, si nemmeeku dëkk bi. Eh, sëñ Touba la ko dum ba sën boo mën. nee mbiru sëñ Touba daal li mu ci mën a wax. xaw ma am ku ma jëmaat si. nee jarut mu cay wax lu bari. tuba eh, tuba na nana jan faale kina nee na ñëw fallu ka ana doxul nee ñëwam gu jëkk fii baayam moo ko fi yebaloon ci sëñ Fallou ak i rakkam eh, naata jan nee mu ñëw Touba eh, nee naa farba 53 nee na ñëwam gu jëkk 53 la 1953 mbe futata jan futata jan araba lun ne nee bisu àllarba la fi yegsi alhamiso eh, façon keta nee na alxamis bi bët setee ngay ŋaniya ah, kaa fo ntene man naa yen doot nee na mu fas lii ci xolam ne comme mu suta ñëw tuubaa ñëw gii mooy ñëwam gu jëkk waa al naatan tijaam fanam ñi njumoo soo nee yàlla eh, may ko mu ñëw tuubaa kon bisu guddik àjjuma gii ma ne laftam bi fi daawoo Kella Mbacke la Serigne Touba. nee na euh, kon ajjuma gi la mu fas yéene mooy defal ñaanal Serigne Touba euh, ñaan gi nga xam ne moom la ñuy tudde Alfida. lumo suuto naata e nganndee sidi ngo fonse basmala to siña wultannim fulake nee na mu jàng basmala fukki junni yoon ak ñaar ci guddi googa nee na ba muy noppi ci fukki junni ñaar yooya. naataje be silo kan nee na ci guddi gi ba mu tëddee di dallu mu yoon wi nga xam ne mooy yoonu Mbàkke wi. nee na booba mi ngi taxaw ci boori soowu jumaa ji. nee na waaye booba fekk na jege na barabu jumaa ji. na woto siya manje camion camion baa mu gis ay oto yu bare bare bari ay oto camion la ay camion ay camion camion baa la wotembo la camion yi kii T45 nee na jamono yooyu am na xeeti camion yu ñu daan tudde T45 naata wolu jee nee na xeeti camion yooyu la gis keroog e bi naari be bola Mbàkke nee na ñu ñuy ñëw jóge boori Mbàkke mel ni kuy jubal si ci barab bi bi. waaw melooni. nee na mi ngi taxaw. bari siyaata. bari waaye kamiyon yi bari lool. ah naata fo ko ñun camion de mbe compté la de. nee na ci gént gi mu comme ne xaara camion yi bari na de xaara ma ma leen ma wàññi leen. ala ke folo naata. nee na eh, bu njëkk bi yegg si. ah non yi ñu Sëriñ mu gis camion bi ko njëkk romb jëmmi Sëriñ ci kaw camion booba. Ah, mi ngi sëpp ci kaw camion bi teg ci ay loxoom ci kaw. balaa kaw de. nee du du ab photo de waaye ci gént gi jëmm ji la gis mu sëpp ci ab camion. mooy camion T45. maa ngi ko nee na du photo du nataal. Eh, ñaata oto wul jàng. nee na mu dal di di ko commencé di compter oto yi. ah bari woto woto sëñ Tuubaa bi woto yi koy romb yëpp bu ca nekk yëm sëñ baa ngi taxaw ci kaw oto yi. ah fo naata daan fo woto tan eh, tan kononto anin eh, kononto. nee na muy wàññi di waññi ba yegg ci juróom-ñeent fukki oto ak juróom-ñeent. Eh, nata woto kilinje wol mu kemen jangude nee na woto yooyu bu ca nekk sëñ baa ngi taxaw ci kaw téeméeréel bi eh, dal di yegsi ah, bari nga woje ko bitum ba ma woto je ñin kooma hmm. fo nga ñinin ka moom be kirin bi fon saalo nee na bi mu gisee oto bu mujj bi ah, ca la taxaw eh, stopé oto boobu ah, comme bi moo mujj mu ne xaaral ma laaj chauffeur bi lan moo xew na daw chauffeur passe à l'autre nee na mu stoppé chauffeur bi chauffeur bi taxaw waaw eh, nga ay ko woto mi be mu ne ko li ma jaaxal de mooy oto yi ma romb nii yëpp eh, abe mu marqué kilimo yi nee na ko yëpp oto marque bii la muy T45 camion bàyyi t ko ma oto yi ma gis nii yëpp même marque oto la ah bàyyi woto li ma ci jaaxal nag mooy oto bu ca ne. sëñ baa ngi taxaw sëpp ci kaw oto bi. nga ay fan na woto fële loolu. mu ne ko yow tamit maa ngi nii yaa ngi nii yore oto bii nga yor it maa ngi séen sëñ bi ci kaw. ah nga mu ne ma kii. mu ne ko mbaa jàmm la lan moo xew. ah kon eh, yëf yi daawoo mu ngi kaay. Hmm. mi woto ke moɓe mbewlo sambalaye mu ne ko ñaan gi nga ko doon ñaanal nii fidaa gi nga ko doon defal nii moom lañu ñu yëpp ci oto yi di ko yóbbul sëriñ Touba oto keme téeméeri oto camion lépp muy xeeti camion boobu wolbeexa moy tan wolbeela loola yëpp liñ doon yóbbu mooy ni ñaan gi nga xam ne da koo jagleeloon sëriñ bi wabay di ko yóbbul sëñ bi ah, a nee na kon loola doy na ko sëkk ci mu xam kuy sëñ Touba. waaw bisu moom ma ñëw nee na kon moom du kenn ku ñuy wax sëñ Touba ndax moom da ko dafa xam sëñ Touba yàlla da ko wanal boppam sëñ Touba. ba ayatar fana. nee na fekk na it. Eh, mu fa mama wala monsieur Mamadou Makhili. nee na maamam jooju ñu tuddee muy nga xam ne mooy Mouhamadul Makhili te moo jur moo jur baayam. Um, um, wonene awa mpama ke baki nee na mas naa yónni mas naa yónni jóge Guinée Conakry ca Touba mu yónni magu baayam awa a kaye ko bari ay lettre o safe fana yaa diyaala mu bindub lettre jox ko a kaye ni putata Sénégal pero beke a futa njaarim mu ne ko boo yeggee na nga fexe nga yegg Serigne Touba Ah, ci ah, njaareem ani ah, mooy taalibe sababu la mu boole koog ñett ci ay taalibeem bi nata ja nata njaareem bi nata sëñ Touba tara yi nee bi ñu yegg see njaareem ñu fekk fa sëñ Touba waaw bitum wo xibaaru no mais alfa bi muy nekk tànk ci la daan dégg ah, seen kilifa yi di nettali yoon woowa nga xam ni maamam moo yónni ne ko demal seetali ma Serigne nee na magu baayam boobu yàlla may na ko gudd fan lool. mu ab jaamukatu yàlla bu mag la it. Eh, c'est 1952 à naata. nee na am eh, eh, en 1952. à naata Marsassoum. nee na 1952 ko magu baayam boobu jógee Guinée ñëw Marsassoum. waaw ñu naan Taliboulu. mu ànd ak ay taalibeem ñëw fa. waaw ñu naan Dingudoulu. ak ay doomam ñëw fa. nata ko sina moro konton mu ñëw doon ziyaare si baayam moom mii di rakkam ah, biduma taɗum kay moy ka fako wo mama ya kiile naani fo seen tuuba kan fekk na nag ba ñuy gën a doon tu tànk daan nañ dégg ni seen maam yi kooka la yónni woon mu ñëwoon ci sëriñ Tuuba ah, nte nte fango naatañi nin ka lundo nee na moom mii moo ma sa laaj magu baayam boobu bis awa ŋañini nga nee na mu laaj ko ne nkaye ko eh, ko i tatale fo mama ye kiile fo sini tuba kan fo i tatatara fo njaare mu ne ko ah, maa ngi dégg yàgg nañ ci dégg ni sunu maam daf laa yónni woon ci Serigne Touba yow yaa demoon fekki ko njaareem naata fayin ka ntoluma Serigne Touba yi. mu ne ko ñun de amuñu chance su gis Serigne Touba. bari nga kanu te doroŋ. waaye am nañ cofeel ci moom lool. waaw bari mu ite ne ko waaye yow nag gis nga ko yow ci sa bopp. ah lafita se nka cande kuma la se mun fa amuñu alxuur. mu ne ko dañu bëgg it nga waxtaanal ñu yëg-yëg gi nga am ci sëriñ Touba ak li nga xam ci Serigne Touba. anata yen kuma foñ anata yen foñe ko. nee na magu baayam boobu ne ko. a ah, comenzar por aliendo capo Touba moo sa misaal sa misaal Moncala. mu ne ko li ma leen ci mën a tënkal daal eh, ci sëriñ Touba mooy ni bu ma amee misaal mu ma koy mën a misaale. ah misaal bele saamu mu ko misaal mi ma mën a misaale sëriñ Touba daal mooy ni ab baykat dem bay ba noppi. أنها سنفهم بيتها nee na ku mbay sab gerte ba deqi ko ba si sol ko ci saaku yóbbu ko ci ki nga war ki nga xam ni moo war a jënd gerte ga nga yóbbu ko ca moom. ay kolo ay kolo konto koye mu peese gerte ga ne la gerte gi kat la nga ci mën a am nangam la ci xaalis eh, sen eh, eh, lafan fana ta fo tar sama mbir mo sa noté ah léegi nag ki nga xam ni mooy kii jënd gerte kii fay kooka bindal ko ca not jox ko ne ko nag téyel lii lii nga fi am waaye demal xaalis amagu fi బిరువు కదా నద పెండూలు తాతింద్రం అతపమహీనత aya eh, diyala tendoron eh, ka bari bitala ila goɗo fele ya ɓenno tele fa banta sa mm. sen fen samba e wuro kense mon kana puta dimba aɗum eywa eh, nena bi muy dem mu ne ko kaay mu ñëwaat mu ne ko comme xaalis amagu fi léegi mu am ay weccit yu sew yu mu ko dajaleel rek ne ko lii booye boo nga yóbbu ko rek nga bañ a dem loxoy nga bañ a ñibbi loxoy neen ca kër ga waaye bis bi ñu lay fay jotagul bis bu jotee dinañ la woo fay la importation ye mun di Sénégal la tey. nee na euh, jaay jëndkatu gerte boobu weccit yu sew yooya mu jox baykat booba jox ko dig ne ko bi sàngam nga ñëw nee na lu tolloog weccit woowa. ah comme jaay ko wo fengo mun dunta Sénégal bu sim wala mu sim bambala sotore sim tuba. Mhm. Ah, a soto mun kɛ a n'a a denw lu ni a أنا لطالب العلوم أنا لجماعة ب في وفرني أسرني غير مجرد الدنيا جان أكو نيويو مدمندين مندي على كابوتا يمتبادل كله بين نوتين جالين أكو شنتو بارو بارك على كابين نوتين إلى يوم القيامة أما كلين أبو نوتو يا بنيا من نكادي على ولا كلين. نينا كوميرسان بابو Euh, weccit woowu mu jox si euh, baykat bi ne ko yóbbul lii ca kër ga ba xaalis am nga ñëw nee na misaalu loola mooy li sëñ bi am ci àdduna yépp misaalam mooy weccit yu sew yooya commerçant ba joxoon joxoon jaay jaay boroom gerte googa la ca des ci mayu sëriñ Touba. te kenn gisagu ko euh, bis penc la ko ko yàlla di fay loola mooy la desoon la la nekk ca gerte nga xam ni fayam nee may Sëñ Tuubaa noonu la toll. waaw Sëñ Tuubaa misaal nee na li mu mën a tënk ca la mu gëm yëg ko ci mayuk Sëñ Tuubaa lii la ci mën a wax ci misaal. ah fidawo kaye ngayon kuwoje nee na loola bu fekkee ni kooko wax na ko loola baayu magu baayam jooja ca 1952 1953 mu ñëw fi gisaat lu mel nii ci euh, euh, basmala yooyu mu jàng jébbal ko sëñ bi loola kon dëgg-dëgg li muy waral mooy mu xam ne sëñ Tuubaa moom kenn la <laughs> ah, ko kuwoto surtout ka kuwo surtout ate le yeñinti mm, nee na li mu ci mën a tënk daal mooy yëg-yëgam fii la toll ci Serigne Touba eh, yo mu kuo fana lanke ne ma téléphone nee na waaye nag warta jaaxal kenn mit Serigne Touba moom laajte ko sax jaratu ko ndax dafa leer nañ ñi ñëpp gisandoo ko foye ah, ah, magalom foye magalom be kele jam bi Touba jam mm. bi be kele jam bi mm-hmm. naa manque arafa looti ade nee na loola la koy firndeel mooy ni màggal rek la fay daje ah, amut fenn fu muy daje ci àdduna xanaa taxawaayu arafa amaana ah kaayam alfalo koola hmm. yiyo konola hmm. isalo wo ɓengo koola magalol ɓengo warsambo ɓe ɓe ñaaɓe benn benn dajeb l'islam boo xam ne dana dajale ay jullit ci benn barab nu tolloog li màggal di dajale ci ci Tuuba lu nag xanaa bu doonee bisu ma faa bi tun kee fa ma kee baay mu ngi wàññi. nee na dafa nga jëlee ñaar nee na baayu taxam jooju la ko wax moom it mu gisalaat ko boppam. ah Paa wala Kamala. nee tax. monsieur Gouma mu ngi foofu kóosu fa la. nee na la mu mën a wax daal tënk ko ci sëñ Touba munta sori ndax moom loole la ci gëm loolu la ci fas. monsieur kooku. se kuku kanaarino se kuku bétoke sëñ Touba kuute ya fen fen kije perdinti yi ni mi e nee na mbiru sëñ Touba ak xidmaal ko nee na amut genn rëccu loo ca mën a def rek boo yeboo nga xeeb ko ndax loo ca def doyul <laughs> waaye mooy soxla fa yàlla moom benn palabra. nee na yal nañu yàlla booleen njariñ ci barke Serigne Touba. ah ñun na fa la muul la mun nga taa diŋolu ne amama la muul. yal nañu yàlla taas ci njariñ ak barke yi ay doomam ak i sëtam. waaw mun ak mbooleem ay taalibeem. mun na fali bee barke la. yal nañu yàlla njariñ ci seen barke. ah Faye Nse fooy noo si wala fooy yéen. daal ci tënk lii daal la mën a gàttal ci Serigne Touba. Eh, mooy xalifa bi jam na tey ki nga xam ni moom mooy xalifa euh, généralu euh, Mouridiya mooy a Cheikh Mouhamadul Mountakha mais xar wa na moom rek doy na seede sëkk sëkk sëkk si wax ci ci xam ni Serigne Touba nitu yàlla la waaw ah, moomu la ala ki nga xam ni bu waxee yàllaa tax muy wax ah, awa bàkke la ala bu defee it yàllaa tax muy jëf ah, awa la ala batu te la muy soññee saa su ne mooy jaamu yàlla. e eh, asama ba batu. moom sax ci jaamu yàlla di ca soññee. ah bee ñaa la. moom ñëpp rek ñu ngi seede loolu. ali kuñu maa maa baaral kuñu maa baara. nee na soññee saa su ne. ci jëf lu baax ak moytu sofa. ati fanga moom mu nekk ci ñëpp di ko di ko ci gis. waaw ah, o kaanta seede doy na seede kii kat yoonu ka yoon wi. Ah, ولكن يسفهم إلى قوته يفهم في السفه فليجيب سامو نانا موم لب لو ني مانا واخ سي سيغ توبا njabootam doo mën a yegg ca dayo ba laa bu da nga xeeb ko lépp loo ca mën a bind it mënoo bind ba peek leen loola mënut a nekk waaw loolu moom benn palabar ko la. yàlla njëriñ ci seen barke. Ah, ah, waaw waaw ma di mu kàcce. nee na waaw wax dafa xaw a jafe ci moom léegi. lii la ci mën a tënk. waaye ala soo na bi na oh. yal na suñu borom defal leen tawfiq defal ko ñëpp. waaw hmm, ah, man man ni beesul la. yal na yàlla defal yiw defal leen tawfiq ci seen mbir yëpp. man ni beesul saabu ñu ma la. na leen yàlla may dëppal leen ci seen i mbir yëpp. waaw wante seen mu ngi foofu noonu la seen i lii la lii la mën a tënk ci wax ji li ci des nag xam naa kii comme doomam moom daanaka lu bari ci doxinu dëkk ba moom moo ko yor ci wàllu jàng ak jàngale. ban dafa naayintoo. Uh-huh. nee ci ñëwam gii ba tey. Eh, ni ndoxul naata. ay rakkam a ngi ci jataay bi. waaw ah, waaw eh, ndaw doo bi Mouhamadou Kaaso wala moom na jëm juma almaamuuti. nee na am na rakkam ju fi nekk ci jataay bi. mooy imaamu jumaay dëkk ba moo toog nii. mooy Mouhamad Kaaso. ñaari addo foofa la Mouhamadul Xayri. aywa am na jeneen rakkam ñu naan Mouhamadul Xayri moo nekk nii. waaw ni mu munu naata. nee na ñi mu àndal ñëw. waa ni Ahmadu Cheikh Ahmad Bamba. ak ak ak Cheikh Ahmad Bamba moom mooy caatu baayam sëriñ bi la ko tuddee. waaw baay bi tuuti tuuti kaaroon comme Sëriñ Bamba moo xool ci. waaw sëñ Abdou Khadir Abdou Khadir Abdou Khadir mu fa adi mm-hmm. mm-hmm. laban. nee baayam doomam caatu baayam. wala Sëriñ. nee na mooy Cheikh Ahmad Bamba mii. ah toogal Ahmad Bamba. Cheikh Ahmad defe na. na moom mii it. waaw ndiin la ba moom. nee na doomam ju mujj. musoo la moom. jigéen la. ma ngaa taw la maam jaara bu jaara bu ko tuddee. waaw nee na ñoom ñu ngi ci biir mbaarub Serigne Touba ñu ngi ci biir gaalub Serigne Touba. affaire nga eh, Moussa Touba mën na ku moo eh, baayam booba maamam yónni woon ci Serigne Touba. maa Serigne Touba la ko mooy yitteel na tey. ni ki nga xam ni ci moom la njëkk a dégg dégg li ko gën a yéem ci Serigne Touba. woo oh, sang woo sang. nee na at mu mu jot. sa xalwaat mu. daan na dugg xalwa. si tànnaan. ñeent fukki fan. situation Signa warul la nee na at mu jot dana def ñeent fukki xal ñeent xalway ñeent fukki ñeent fukki fan dana ko def juróom-ñaari yoon. moo tax lu di laal de baake la alale nga du ni dat si daan da ko daa def ngir dañ ko ko def loo. comme moo ndax comme nitu yàlla yi nañ koy defee. woo dingu dingu. nee na kooka doomam. waa di laban mu mu mu caatawti. nee na ka nga xam ni caatam ca kooka la topp. waaw wala ji si Abdul Qadir. mu ngi ci jataay bi mooy Abdul Qadir. waaw fanaan naata yi nag bu na ñëw ñëw ñëw fii ci dëkk bi tas jóge Guinée ñëw taslima. nga bi daal la foofu bi daal la Touba. muy waaj di ñëw Touba. saa yi fan si pare beebi daal la kon booye boo ñu ànd rek demaale Touba benn yoon. waaw fay ku wala benn bul la. nee na ah, lii rek daal moom la mbir mi demee. foofu fay ni kese ala ibe kese kata kiila sallallahu alayhi wa sallam ala ala ala mu be ñanta yaa be kan. nee na kee koo xam ni yàlla la tax a jóg yonent bee la tax a jóg nitu yàlla boo gis war nga ko sopp war nga koo bëgg. Ah, ngi ci wala fan Touba Pout. nee na la mën a wax fii ci Touba. wala boo allah jërëjëf jaabi. une forte délégation. qui a accompagné le khalife général de Taslima Cheikh Al Hadj Sidiya pour rencontrer le khalife général de Mourides Serigne Mountaga Mbacké. Bismillahir Rahmanir Rahim. sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma baadu fa yakuulu abdu rabbihi alxaaju sidiye jaabi ibnu cheikhihi cheikh alxaaji muhammad foode jaabi ibnu cheikh muhammad almaghili altuubawiyi alfuuta jali haadihi qasidatun raa'iyatun min bahri albasiit nazamtuha fi qudumi maa baadi ixwati wa abnaa'i wa talaamizati ala madinati tuuba mbakke li ziyaarati alxalifati sheikh alxaaji muhammad almuntaqa mbakke ibni sheikh muhammad albashir mbakke ibni xaadimi rasuli sheikh ahmad bamba mbakke rahimahu llahu wa radiya anhu wa anna bihi amin عام اثنين وأربعين بعد أربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية سنة 2021 من الميلادية فقلت وبالله التوفيق وهو الهادي إلى أقوم الطريق هل بدر تم أنار البدو والحضراء وعم نشر سناه الخاص والزمراء am inna sayyidana almicwaana qudwatana xalifatun li xadimi almustafa zahara muhammadu almuntaqa nicma alxalifatu wal haadi allazi yursidu tullaaba wannuzara yanha wa ya'muru fi ma kaana yanfacu fi sengaali yascaa liwajhi llahi duuna mira bana almadarisa nusxan walmasajida fii tuuba wa fi gayriha falnumcini nazara kam min fatan jaa fiha liltaallumi qul qad naala julluhum alcirfaana walsiyara kam saalikin yacbudu almawla wa yazkuruhu sirran wa jahran wa kam min qaadimin shakara ka annahu alyawma fi sengaali ajmaciha insaanu aynin yuraa fi ra'si in zahara wa kaana gaysan mari'an fi xilaafatihi wa yunsihu lkulla mimman jaa'a mu'tazira yaa dahru tih bi imaamin laysa yunkiruhu axdun min annaasi illaa xaasidun zujira baxrun muxiitun camiiqul qacri saaxiluhu yakfi liman yakfi liman yabtaghi alyaquuta waddurara jazaahu rabbi an alislaami axsana ma jaaza bihi algurra min saadatina alkubara aalulxadimi kiraamun ahlu macrifatin wa xikmatin fihim alkuttaabu walshucaraa qad kaana fihim min ahli alcilmi taa'ifatun mujaddiduuna funuuna al-ilmi fantashara zuhuruhum fi qura Senegaali maslahatun wa nicmatun min wa nicmatun cinda ahli al-casri wal-umaraa laa garwa fal-xaadimu al-mifdaalu xujjatunaa jaddul xaliifati man ixsaanuhu zahara sheykhun murabbin waliyullaahi caabiduhu cibaadatan qalla man yaxqiihi fi lkubara cheikhun murakkin li sullaakin atawhu kama yahdi nnuha wa yuziilu ljahla walxatara hu aayatun min ilaahin waaxidin samadin wa xaadimun li janaabil mustafa ishtahara yajziihi rabbul wara awfal jazaa'i kama يجزي به الكل من أشياخنا الكبراء هاق القصيدة يا خير الخليفة من أخ محب لكم من أفدم, من أفدم الشعراء هاق القصيدة يا خير الخليفة من أخ محب لكم من أفدم الشعراء أنا محبكم ابن المحب لكم ibni almuhibbi lakum wa xubbukum zahara salla alilahu ala xayri alwujudi wa man yakfuuhu fi ma nahaa anhu wa ma amara wa alihi wa ala ashaabihi wa ala xadimihi almurtada akrim bima satara waaw kon euh, mu ngi noonu Euh, euh, ki ñu doon wax mooy alxaaji Sidiya Jaabi euh, dégg ko ci ay kàddoom yi nga xam ni jibal na ko jëm ci yëg-yëgam tijaaxa Cheikh al mu doon yëg-yëg woo xam ni ñun dañ ko dund ak moom ndax sunu borom dogal na mas nañu dund ak moom di nekk guddi ak bëccëg lu toll ci juróomi at ba juróom benn ñu nekk ak moom guddi ak bëccëg euh, yii nga xam ni mi ngi ko mi ngi ko fi wax tey man ba ma ko daa dégg ci moom dafa yàgg lool kon lu lu lu lu mu dund la lu mu lu mu yëg la euh, te nag fexe na ba suuxat ci njabootam euh, sunu borom seede na ni diir bi may nekk ak moom yëg naa ak dolliku gu rëy rëy rëy ci ci ci Serigne waaw ndax it nag eh, yu bëree bari xam naa eh, comme niñ ko waxee léegi wax da koo yombatul lool wax da ko yombatul waaye eh, bu ko wax yomboon comme bu jëkk am na ci yu bëree bari yoo xam ni yu yu yéeme la yu yéeme la ci ci mbiri Serigne Touba yoo xam ni ci digganteem ak sunu wàll waa waa gox booba la la xewe woon te yu bëree bari duñu koy faral sax di dégg fii dajale nañ ci lu bare bari diggante euh, Serigne Touba fi mu jaar ak Serigne euh, Alhaji Cheikh Gassama mi nga xam ni moo njëkk am émission islam ci Sénégal euh, Cheikh gasama bàyyi la ci moom mii. manaarul islam bàyyi la ci moom mii. kooka wax na ko jaar-jaaram ak sëñ Tuubaa mu doon lu yéeme lool loo xam ni jataay yu mel nii du maye pour di ko fi nettali euh, diggante sëriñ Tuubaa ak euh, Cheikh Zunnun li mi nga xam ni ay dem ñu ngi ci diiwaan ñu ngi ci diiwaanul al ulum euh, ak di di diiwaanul shuara sénégaliyin Cheikh Zunnun li jaar-jaaram ak fa mu jaar ak sëriñ Tuubaa ci ba mu ñëwee dénk ko boppam ak yu bari ya fa xew ba ni fi sëñ Cheikh Zunnoun di jógee naka ko sëñ bi junge ci ay misaal euh, yooye yëpp ci moom mii laa ko laa ko jëlee diggante Serigne tuubaa ak euh, Karamoxo xalifa mu doonoon kilifa gu mag a mag foofa ca ca sunu gox yooya nga xam ni moo ñëwaloon boppam ci sëñ Touba ak fa ko sëñ Touba jëlee fa mu ko yóbbu loolu yëpp ci moom mii laa laa laa ko daan taataane. kon man dama dolleekoo dama dolleekoo ci moom ci lu bare bare bari Serigne Touba bu jataay yu mel nii bu ko mayee woon yëpp dañ ciy jaaraat incha allah waaw yëpp dañ ciy jaaraat incha allah euh, te nag lu jëm ci it euh, euh, téereb sëñ Bachiru di minanul baaqil xadiim diggante sëñ Bachiru sëñ bi wax nañu ci lu bari ñaareel bi tamit euh, diggante euh, sëñ Bachir diggante moom ak euh, waa kër Serigne Touba yi wax nañu ci lu bari diggante sëriñ Touba ak fi mu jaar fi fameem fami fami Karamba Touba jaar ak moom lu ci baree bare bari ci moom lañu koy jëlee. laaj naa ko sax yoon wi ba xam sëñ Touba mas naa dem Touba googa mu ne ma loolu musuta am ndax ñoom dañu doon famille xam-xam famille xam-xam boo xam ni lépp dañ koo bind am na ay muallafaat yu bari seen taarix lépp dañ koo bind waaw laaj naa ko ndax amaana am na ay wax yu fi jib ni sëñ Tuubaa mas naa dem Tuubaa waaye mu ne ma loola musuta am te ci famille booba euh, moom fi mu toll nii kenn magu moo fa mag amaana am na fa amaana xaw ma teewluwuma ko ñoo xam ni mën nañu doon yi bàyyam waaye bu dee ci at moom mag ci mboolem ku jóge ci Karamba Touba moom mii taarix yi it ca ko bind ci la bokk ña bind taarixu foofa moom mi def caa bind lu yaatoo yaatoo yaatu eh, nee na musutaam sëñ bi musuta dem foofu waaw alaaka yi nag fa mu tàmbalee ci sëñ maam Moor ak eh, Abdul Qadir Qutub moomu lépp moom feddali na ko waaye sëñ bi dem fa nee na loola am kon ci gàttal euh, dëgg dëgg dañoo doon mébét jamono yam fi daan ñëw bu njëkk euh, bu lii amoon boobaa ngeen mën a dégg lu bare bare bari waaye léegi wax màgg na wax jafe na ko it lool kon ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu yokkaay fanam di wane mbégte yit ci daayiratul muqaddimatul xidma ci taxawaayam euh, mbégte ci seenu taxawaay ñu man du ngeen gan ci man ndax nag damay wax ni lii sama ñëw Tuuba Euh, pépinière bi jiw bi ci yéen la tàmbalee waaw ci yéen la tàmbalee sama ñëw Tuubaa lépp man nañu ne ci yéen la tàmbalee waaw ndax xame gi jaare ci euh, sëñ Koso mu sëñ Muntaxa ba yegg ci sëñ muntaxaa ba mu may jox ndigal ne ma ñibbisul Tuubaa booba lépp ci yéen la tàmbalee kon dañ leen di sant waaye man it sama sama sama baay a ngi nii sama sama sama kilifaa ngi nii euh, sama lépp ngi nii lu bari da def ci man kon ñaan yàlla mu defal jëpp tawfiq incha allah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو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 والله وما يوهي وهو أرحم الراحمين اللهم أخبر من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم يعم الله إنا نحن نجلنا ذكر وإنا له لحافظون حفظا من كل شيطان مارد وحفظا جعلك تقدير العزيز العليم الله لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة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 وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي